tàmbalee ak le PDS ñoom nag mm. dañu daal di def une proposition euh, de loi pour réviser euh, le règlement intérieur de l'Assemblée nationale. waaw ginnaaw bu nga xamante ni coow lu jóg na si déclaration de politique générale yu Ousmane Sonko dafa war dem assemblée nationale moom mu ne fokk ñu def règlement intérieur bu bees mu bañ a dem assemblée nationale député yi nag euh, ñoo xam ne ñooy député waa wàllu euh, ñoom ñoo def proposition de loi su soumettre ko ki nga xamante mooy président assemblée nationale démb lu ñu bind loolu euh, lu ñu bind si mbir mi nag moom moo di dañu ñëw ngir lu nga xamante mooy règlement intérieur li nga xamante ni génne woon nañ ko mooy euh, ay attributs yoo xamante ni premier ministre la ñu ko joxoon ñu dindi ko ci règlement intérieur bi ñu dol dollee ko conformément ak loi bi nga xamante ne loi 2019 euh, la woon député yu nga xamante ni ñoo nekk si wàllu euh, ñi jiite loi boobu moom moo di proposition de loi boobu Ibrahima Diop ak Serigne Aboubacar Thiam ñaari député wàllu Sénégal yooyu ñoom ñoo def lool di proposition de loi Nafissatou Diallo bu nekk wàllu Sénégal Sénégal PDS ba léegi moom moo ko euh, moom moo ko signé ñoom ñu saisir ki nga xamante ni moom mooy Amadou Mame Diop euh, nee ñu nag euh, li nga xam ne moo fi nekkoon coow yëpp loolu lépp jaru ko président assemblée nationale moom prendre acte ci lu nga xamante ne moom moo di lettre bu ñu leen bu ñu ko sumetre moom mu étudier ko bu ko defee ñu voté ñu soppi li nga xam moo di loi organique bu règlement intérieur bu assemblée nationale jamono ñooy premier ministre ñëw def li nga xam ne moo di déclaration générale mun nañu wax nag tey jii lii en principe si la Amadou Mame Diop di tontu ñi nga xamante ni ñoom ñoo di député euh, député PDS. bu ñu jógee ci loolu ñu wax ci conseil des ministres le premier ministre Ousmane Sonko. Mhm. Euh, li mu bëgg rek mooy électrifier le monde rural. waaw démb si conseil des ministres la ñu ko fësal Ousmane Sonko premier ministre bu sukkandiku ci li nga xamante ni moom moo di euh, GTA euh, Grand Tortue mooy projet bi nga xamante ni ñun ak Mauritanie ñoo ñoo ko seq muy produit gaz ak pétrole ñu ne dañuy defar benn pipeline boo xamante maanaam foo xam ne gaz bi mën na fa jaar Saint-Louis lay jugee ba Ndakaaru bu ko defee ñu mun ko raffiner ñi nga xamante ni ñooy monde rural bi euh, mën ko utiliser ci lu nga xamante ni moom moo di euh, moom moo di énergie euh, énergie courant euh, ngir sénégalais yi ñu mën leen parce que courant bi euh, nee nañu dafa euh, cher trop ginnaaw loolu mhm. am na yeneen travaux yoo xamante ne war nañu ko continuer lu ci mel ni building administratif Mamadou Dia si conseil des ministres tamit la ñu ko waxee li nga xamante ni moom moo di contrat yi reprendre nañ ko pour mbiri travaux yi jeex peut-être démb nag Euh, li nga xamante ni moom la ñu fa jëlee ci conseil de ministres ba léegi président euh, Bassirou Diomaye Faye doon ko jiite woon tamit yëkkati na ay kàddu foofu mu wax ni euh, collectivité territoriale secteur pub privé bi ak sénégalais ci ñoo war a lëkkaloo ngir fexe ba am cadre de vie boo xamante ni dina yaxan bu ko defee kenn du nekk ci mbedd di di jaay wala di sànni ay mbalit loolu dafay permettre nga xam ne ñu am urbanisme bu bu set set mm-hmm. habitat tamit boo xamante ni. bu jaar yoon espace public euh, boo xamante ni tamit dinañu ko dinañu ci naw loolu le euh, président Bassirou Diomaye fay wax ginnaaw bi nga xamante ne euh, Ousmane Sonko àdduna ci projet de loi yi nga xamante ni gouvernement bi dina ci dina ci ñëw ci semaine yi di ñëw lu toll ci centaine projet de loi 350 milliards de francs CFA pour financer li nga xamante ni moo di l'industrie pharmaceutique. waaw industrie pharmaceutique ñoom dañ doon jooy ne waaw dafa bëri ay médicaments yoo xam ne dañ koy jéggaani faneen. Mhm. Euh, ba pare médicaments yi dafa cher am na financement boo xamante ni dekkise nañu ko ku ko fësal nag moom moo di. Euh, ki jiite projet bi mooy professeur Yérim Mbacké Yérim Magic Diop moom moo ko moom moo ko jiite euh, ñu ne amoon na euh, mobilisé woon nañu deux cent milliards wante euh, yokkaat nañ ci yeneen trois cent cinquante milliards ngir li nga xamante ni moom mooy médicaments yi fii Sénégal mu mën a disponible fii ak décembre deux mille vingt cinq lépp dina yaxar ndaxte ay centaines de molécules ay médicaments la ñuy importé fii Sénégal te médicaments yi dafa cher ba jéggi mm-hmm. te Sénégal. Euh, toll na foo xamante ni war na ñu mën a defar li nga xamante ni moom mooy suñu ay médicament bopp ci yenn fànn yi bu ko defee ñu arrêté li nga xamante ni moom moo di jéggaani médicament euh, yu bëree bëri ñu ne euh, defar 20 pour cent ci médicament fii ak 2025 objectif bi foofu la toll leneen li nga xamante ni war na ko bëri 50 pour cent si ay médicament d'ici 2035 pour médicament yi nga xamante ne maanaam ay garab mm-hmm. maa ngi naan médicament sànq ba léegi ay garab 50 pour cent d'ici 2035 ñu mën ko produire bu ko defee sénégalais yi mën ci utiliser euh, mën ko utiliser ba pare boo xoolee am na ci production bi dix médicament maanaam dix euh, fukki pàcc yoo xamante ni ci ay garab euh, lañ ne mën nañ ko cibler trente pour cent d'ici deux mille trente loolu moom mooy objectif bi fii ba foofu ci financement bi nga xamante ni moo toll ci deux virgule cinq milliards foofu lañ koy foofu lañ koy def ñoom ñu ciy lëkkaloo ak benn ONG bu tuddee Delivery United projet boo xamante ne américain la ak ay ak ay anglais ñoom ñoo ko ñoo ko financé. Mm-hmm. Euh, bu ko defee euh, jéggaane li nga xamante ni moom moo di euh, garab yi ci bitim réew du ko andi fii Sénégal nañ ko dakkal ba pare tamit fexe ba nga xamante ni médicament yi fi jaay mu nekk ay faux médicament mhm. ñu dakkal ko moom sax nee na lu ñu nemmeeku moom moo di daanaka loolu ñu ngi gis de plus en plus mu ngi mu ngi disparaître moom mooy ñi nga xam ne dañuy jaay médicament yoo xamante ne amul ordonnance te teguñu ko fenn jërëjëf Pa Malick ñu jaajëfal la bu baax a baax xibaar yi am na solo Sénégal nag lépp lu nga xamante ni. Euh, dañ koy jéggaane bu ñu ko mënee wàññi daa gën. Mm-hmm. garab yi ñuy jéggaane ak leneen ak leneen luñ ci wàññi rek dafa gën. donc ah. euh, jël lu toll ci trois cent cinquante milliards. Mm-hmm. daal di koy financer ci industrie pharmaceutique ça c'est une très bonne chose. mais mais je me dis que est-ce que loolu sax bon Sénégal xam naa ne amul xaalis ba pare bon dañuy euh, dem si ay ONG pour mu jàppale ñu un pour man sax si affaire en termes de médicaments boo xamee cherté médicament nu mu mel bon c'est très pour man c'est très peu. mais c'est mieux que rien. waaw waaw c'est mieux que rien mais pour man lu lu si gën a am solo fexe ba nga xamante ne médicaments nekk yu jóge àll parce que on importe beaucoup beaucoup de médicaments et puis la plupart ces médicaments yi importé fii ay euh, ay genre mën nañ la jox ay médicaments yoo xam ne euh, médicaments yu périmés yoo hmm. xamante ne baaxul ba pare aussi tamit façon bi dafa bëri donc euh, bon il fut des yi drogue bi moom la ñuy jàpp lu bëri mais il fut temps hmm. yoo xamante ne foo médicaments yi dañu doon def ay ramasses comme pas possible donc bon mais ça fait un moment déggaat déggatuma ñi ñu ne bu saisir nañu ay faux faux faux médicaments mais xam naa ne secteur boo xamante ne ñu siy gagné xaalis moom bëree torop ci affaire wàllu affaire médicament yi loolu moom moo tax bu ñu fekkee mën nañu bu fekkee am nañu ay solution ba mën a dakkal lu nga xam ne moo di importation yi promouvoir fii nii production que euh, ñi nekk université surtout hôpital Fann mooy professeurs yi fa nekk loolu lañ doon kaas ñu ne ñoom professeur Mbouba ñu ne ñoom ñu ay ñoom professeur Daouda ne euh, fii Sénégal am nañ ay ressources humaines yoo xam ne ay professeurs yoo xam ne xarañ nañ pour defar ay médicaments mais mm-hmm. moom mooy lan mooy dañ ils sous équipés amuñu ay équipement seen financement bi tamit euh, mm-hmm. demewul noonu mais xam-xam bi muy fi pour ñooñu mën a defaree médicament bu fekkee ne am na possibilité ñu mën a def ay euh, ñu mën a defar médicament bu ñu financer leen moom moo gën ñu importer euh, yenn yi nga xam de toute façon bon importation mënul mënul ñàkk parce que am na mm-hmm. médicament yoo xam ne sénégalais mënuñu ko defar mm-hmm. mais tamit ñu wàññi ko loolu boo dina tax ba nga xamante ne dina assainir importation médicament yi ba pare aussi sénégalais nañ si mën a profito bu ko defee bo suñu industrie pharmaceutique boo gën a am doole Sadio même si exportation boobu sax. Euh, importation euh, même si importation boobu sax boo xoolee euh, structure bi nga xam ne moom moo koy yor xoolal ñaata la ko état ameel ci ay milliards. ba ya tout récemment rek ñu ngi génn di wax ne suñu épongé wul dette boobu dinañu topp benn moment dinañu am défi nu mu tëdd. rupture de stock. donc mu nekk loo xam ne aussi lu doy waar la déjà dañuy jéggaani te ñi koy jéggaani aussi accordé wuñ leen yenn crédit loolu moo waral aussi foo foo tourné nga gis ñuy jaay garab parce que dafay rentrer n'importe comment garab yi dañuy dugg Sénégal n'importe comment foo tourné ñu ngi fay jaay garab te loolu yëpp ci wérgu yaramu askan wi hmm. lay am njeexital. ñu dugg assemblée. Hmm. PDS. Ah. ah ci euh, projet de loi bi ñu. déposé ngir ñu xoolaat règlement intérieur assemblée nationale. ah mën nañu wax ne on peut dire euh, mieux vaut tard que jamais mais bon pour man euh, parfois man je me dis parfois man suis inquiet quoi toog ba moom mi bu fa pourquoi defoo coow li yëpp ah, après fii lay mujjee. da def proposition de loi après boobu président wax démb dégg naa bu ñu génnee assemblée nationale ñoom dañu doon bon ay journalistes ñoo ko raconté bu ñu génnee dañoo nekk foofu di xaaxataay quoi di ñi nga xam ne. ñenn député yi nga xam ne waa député Pastef yi député wala Yewwi Askan Wi député xawma lan gars yi noonu la ñuy def bu ñu pour en comme si ñoom dañuy dañuy jël les Sénégalais pour des demeurés quoi dañuy nekk fii nii on parle des choses sérieuses déclaration politique générale premier ministre daf ko war a def ñu ne règlement intérieur bu baaxul mais bu fekkee règlement intérieur bu baaxul mais pourquoi ngay nekk di menace dañuy def motion de censure dañuy def xawma lan ak lan lan moo tax euh, demo def euh, li nga xamante ni moom moo di règlement intérieur bu baax boo xamante ni ñoom xam nañ ni règlement intérieur bu baaxul mais defoon règlement intérieur bu baax assemblée nationale ñu voté def la déclaration politique et ñu jàll si leneen quoi moo gën discussion bu inutile bi boo xamante ni amul njëriñ ba pare aussi tamit lu ma si gën a métti moom mooy loo gis coow li coow li amul benn sénégalais boo xamante ne dina si dina si dina ko yokk dépense wala. Mm. Euh, wala wala leneen la tu comprends. Mm-hmm. ay loi ay texte ñoom la soxla. premier ministre day def déclaration politique générale mais na ko def xam nga mu mu ñoom ñi nga xamante ne def def nañ proposition de loi mais pourquoi defuñu ko avant. nga coow li bu mu jubee. nga xamante ne ñu bañ a agsi fii nii mu mu président bi nee na dina dina ko jox suite. mais war a fale fale mënoon nañu ko def bu yàgg loolu moo tax man à chaque fois bon man politicien yi man. éternel recommencement c'est-à-dire yii nii yëpp amoon na fi. moi je pense que moi je pense que le PDS est à féliciter au moins. parce que mënoon nañu ko def avant. waaw mais mais mais boo xoolee ñaari ndey mbili ñoom lan moo tee ñoom ñu def ko kii kii di wax ne que da ngay ñëw par force di il faut nga ñëw def ko te yow tout en sachant que lii li règlement bi baaxul kële tam taxaw fene moom du ko ñëw parce que règlement bi baax ñoom ñaar ñëpp am nañu ay député. lan moo tee ñooñu noonu ñu nga xam ne ñoom sont les les principaux concernés ñu ñu ñu ñu ñu fexe en quatre jours ñu régler problème bi depuis plus de trois semaines ñu nekk ci benn affaire bi alors que quatre jours mënoon nañu déposer defar loolu euh, changer règlement bi donc mooy li ma lay wax les gens s'arrêtent sur des choses yoo xam ne politiciennes te loolu il faut mu arrêter parce que il est temps on a passé quatre voire cinq ans yoo xam ne on n'en a eu que pour la politique maintenant nag il est temps que ñu liggéey du du camp du pouvoir comme de l'opposition pouvoir bi nga xam ne moom moo sasoo liggéey bi moom moo waroon njëkkante sax dugal loi bi nga xam ne mhm. PDS moom la mhm. dugal pour ñu régler problème réglement intérieur balaa ñu ñëw nekk fii di def ay questions politique nga xam ne amul sens. doy na waar en tout cas PDS moom fi ne nii taxawaay sapeur-pompier la taxawee. biir assemblée non man man man je les comprends pas man de toute façon. Ah, taxawaay je les comprends ñaaw gën bu mu jugee. c'est un début de si quoi.

mën nañu wax ne mais bon n'importe quel député mën na def proposition de loi. séance tenante Guy Marius mi mi bind ñu tontu ko loolu séance tenante moom na jël projet de loi yóbbu ko pour ñu changer affaire bi qu'on évite député PDS député PASTEF député voilà mënoon nañoo jël affaire ba pour man coow li bon euh, man jox naa raison. ñi nga xam ne wax ne c'est bëri na de et de l'autre côté les Abdou Mbow et autres ñoom li ñu bëgg mooy def de telle sorte que président bañ a amati les prérogatives di tas assemblée. mais loolu est-ce que c'est possible je ne pense pas. moom ba muy wax loolu defe naa dafa tiit mais loolu c'est une loi mais loolu c'est une loi constitution moom moo ko wax ba y a interférence pouvoir entre exécutif législatif xam nga donc euh, voilà am na yoo xamante ni bay déclaration politique la quoi franchement. merci jaajëfal naa leen bu baax a baax euh, mbokk yi ñu proposé leen ngeen seetaan benn clip et juste après ñu dikkaat euh, fasciné dalal sunu gan c'est que moom waxtaan bu am am solo ay